ministère de la santé ak action sociale jaaree ko ci programme national ngir xeex sa saxat si moo leen di may seen émission entre temps asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy kontaan ah, di jàkkaarloo encore une fois ak yéen fii ci sur la 2STV en direct heure bi nag xam ngeen entre temps moom moo ko moom donc moom mooy ñëw en ah, fas yéene nag euh, jéem a dugg ci biir kër yi dugg ci biir néeg yi dugg ci biir salle yi dugg ci biir ëtt yi dugg ci biir restaurant yi fépp foo xam ne regroupement am na fa rek fépp foo xam ne nit a ngi taal 2STV jàkkaarloo nag team entre temps bi nga xam ne dañuy tàkk ba yàqu ci loolu nekk yàlla ah tàkk ne ba ngeen jëppeet. mën hmm, na jëppeet bu baax ah, waaw sant ngeen yàlla bu baax. alhamdulilah rabbil alamin sant ngeen ku baax. waaw waaw samaawaati wal ard rek. sant nu war. Mm. xam nga lu tax sant war nu ay see. ndax sant war ñu. mooy yàlla suturaal na nu ba tey ñuy xaar bettu ñu leen. dëgg la. ndax tey mënoon nañoo toog nu xaar. Mm-hmm. ñu accidenté ci yoon bi. Eh, kon du maa de taale. Mm. baanu dee. de taale. baanu feebar. maa de taale. baanu na ci jafe-jafe yoo xam ne danañ du toog di wax ci télé. de taale. kon bu nu yàlla may conscience tranquille mm-hmm. ak xel mu dal. la. ba ñu mën a dox suñuy tànk mhm. moo xam dañuy jël oto moo xam vélo la ñuy dawal mhm. moo xam scooter la ñuy dugg mhm. toog fii jàkkaarloog réew mi sant rek nu war alhamdulilah rabbil alamin nun sant doyul kon nag ñu gën a sant yàlla doon sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur yi nag defede moom mun naa lim yëpp moom tudd defede hmm? defede laay way way dégg man <laughs> gaañu daa gaañu ngay way mun naa lim yëpp nga boo desedee ah, ngay <laughs> eh nga gis xew waa Kaolack gi. waaw waaw bu saani xam nga xam nga boo defee bu saani jóge fi waa Bongare yi waa hmm? Saami. lew na Betuwaar. état bi ñëw. waa Ndakaaru ñëw Ouest Foire Yoff. Ah, kenn du def ah, ah, ñu dajoo rek. lu ñu ragale. ay motard. rek cette place yi ak car rapide yi ak ay ay ah, yow di rek di rek. Ah, ndax nga wax am na loolu ñu baax ñu nekk dëj bi. sama dëj sama dëj. sama dëj dinaa ci woo Kader Ndiaye mu ñëw. Ah, waaw sama dëj. ay waay. ñoo ngi ciy woo. sama dëj dana ciy woote waate si dëj. woo ci baaxum mu ñëw sama dëj. woo ci Babacar Ndiaye. Eh. mu ñëw sama dëj. man de Babacar Ndiaye woo ci Mame Diarra Niass mu ñëw sama dëj. ah. woote woote woote dëj. musuma woote. doon sëkk réew mi nañ maa soxla. faa mu dund ba ci kanam. jeex na doon sëkk ak bàq. mu ngi noonu kon nag faa mu dund ba ci kanam comme moom day woote ci ab dëjëm na ca wéetoo ngeen deewul ñu musa rek. ay gaañuwul gaañuwul musu ñoo <laughs> gaañ fii dugg pire toog di xool jàkkaarlo mbokk téléspectateur yi yow soo dee ñëpp feebar. waaw woo ma monsieur Diagne wala Diagne sama dëj bi di. waaw yow waaw monsieur Diagne moom dina dina sawar ci suul la moom. ak monsieur Diagne moom dina ci sawar loolu sax. ak ragal mi ngi noonu comme nag comme chaque jour ah léegi fu ne nii tey journée bi alors journée bi naka la mel reportage yi noo leen def am na ñoo xam ne moom euh, dama leen yërëm <laughs> Eva Eva nag agresseur yi yoo doon wax ci télé bi di leen di leen di leen joytu am na loo leen doon ak yàlla wax jour ba dañuy def euh, moo leen engagé agresseur yi am na moo leen engagé woon ndekete ba amaroo di waxu agresseur am na kuñ nekk mis la ñu la xamee moom it <laughs> wàllu nga ko wàllu nga moom métier tas yaakaar sax ah, ci dafa nekk koo xamante ne taskatu yaakaar la mm-hmm. bu mag taskatu yaakaar te wax dëgg yàlla. Mm, tas na yaakaar <laughs> tas tasu sama yaakaar rek rek. Mm, tas na yaakaar ñëpp. yaakaaru ñëpp <laughs> voilà parce que nekk na koo xamante ni ku soxor la daal. <laughs> dëgg la yow mii ku soxor la. bu dee yaa ngi lay seetaan. xam nga mënoon na xam nga ne mi ngi lay seetaan. mi ngi lay seetaan dalaa sàcc ba pare dem tëj meew mu saf. di naan meew def ci pas si mu rëy. ak i tàgg teg la ay tàggam. waaye ay nopp ci kaw. ay fekk boo boo amee jëkkër da ngay mel ni moom. waaw ay sa mu dugg si war nga ko ay waay sama doomu dëkk doomu Dakar gi waxu lu baax Eva xam naa ne tamit ku néeg la. ndax yow doo <laughs> fee. yow Eva li ngay waxee ne day sax loolu yëpp yi yëpp yi nag sàmm yee direct du cœur. Eva lance ko message. non message doomu laa lay laaj la appel bàyyi ma lance la appel. waaw ma jox la après nga laaj sama jabar gi dañ ko sàcc biig sàcc bu nekk. sama jabar gi yóbbu na ñaari téléphone ya. Ah, ubbi saak ba rubb 380 000 la ta nekkoon. xaalis ba jeex. Mhm. yóbbu maquillage ba ak li po lèvre ba. <laughs> téléphone ba dem na. ci def loolu nag. ndax xam ne nag du ma bàyyi. baadu ndax nag ci mbax ri mbax. waaw te gannaaw saayir. baatin ah, baatin danaa ko jëflanteeg moom ci mystique. <laughs> dana gis li warul gis tey ci guddi. ay sëñ nga baal ma rek. baal ma nga ay sëy sëy dañ koy listaxaar. sëy parce que xool moo siy dugg. kon sëy bi dugg la. sëy da nga koy xool moo siy dugg. dafa am ñoo xam ne seen rawaan àndul. boo <laughs> duggee ñoom ay jafe-jafe rek ngay am. seen sëy àndul ñoom daa dugg ci laalaake loolu mooy wax ni yow. Eva yi ndorteel bi la. parce que moom contrat am du ñëw mën na ñu message. léegi xam nga lan mooy problème bi mais sànq mel ni Eva yaa ko jik waaye moom jiwu la. waaw baal ma xoolaat la jëkkër la jëkkër. ah bu dee dana ma jox la Mouhamed wala jox la laay. ah non bu dee loolu la daal moom en tout cas pour vous dire nag <laughs> yéen samay gars yi amatuma numéro kenn. <laughs> ñaari ah, téléphone yëpp nee nañ ko doon jot mais mënoon nga ma yërëm sax bàyyi ma benn. dama ne sàcc bi daal bi lenn sàcc soo tiim man daal sàcc daa xam. non sàcc tas ko yaakaar dëgg la man daal naka nga mën a tiimee nit. vraiment xool i nga ne ko doññet yóbbu ba pare nag ma ngay toog di seetaan de ma ngay toog di seetaan Eva di comme ni Eva Omaro wax rek ma ngay naan ma jël air daal di faju faju naa suyu baax yóbbul ma sama ay ma bàyyi la ak yàlla ah, ah, bàyyee ko nag ki nga xam ne na suuf jara bàyyi sàcc ñàkk yërmande salaam Ndiaye yi nga ko sàcc keroog fekk ko këram <laughs> agresseur fekk ko muy nelaw sàcc fekk ko muy nelaw ki saara mu dugg ci kër gi romb ko ci saal dugg ci néeg bi yëpp bi yére yëpp armoire bi jël xaalisam ordinateur am fekk ko ci saal bi mu branché téléphone mu débranché téléphone bi yóbbu lépp mu bare nag yow gis ne sàcc ci ginnaaw kër gi sàcc nañ lépp <laughs> mu war a bi jox waa ji ko suñu maa ngi rappelé yaa ngi dégg mu toog ci yàgg waa ko ne ko sa waay gis nga sa wax ngir yàlla bu ma woote eh. sa waa dugg sa kër <laughs> dugg sa néeg sàkk say yére eh. sàkk say dal gis ordinateur fekk rek ci saal bi nga ne ma si téléphone bi waaye yaabu ne <laughs> mu ngi noonu dinañ ñëwaat dinañ ñëwaat ci sàcc bi dinañ dinañ ñëwaat ci sàcc bi ndax dafa ne di sàcc bi ma ordre du jour ndax sàcc nañu nag sàcc Eva sàcc ah, entretemps sàcc Eva sàcc nga entretemps de eh, sàcc nga ambassadeur bi ah waaw waaw cof na la cof ah, na la euh, dana ko gis na dafa tel ak moom ci mystique ndax danaa ko laal mystiquement woo jinne yi waaw ci gàllaaj woo jinne yi danaa ko laal ci gàllaaj danaa ko def loo xam ne tey ah? balaa guddi gi jeex dana génne portable. alhamdulilah téléphone moom na. kayitu ah. daa war di ñëw ndax moom il faut ñu def deflante ak moom tey ci entre temps dañuy tey lan ngay may sàcc bi kado. tey lay dégg loo <laughs> ko dolli. ñu ne dee di <laughs> nga torox. ah waaw waaw ah bébé nañu rek toroxal nañu nañu rek. waaw yàlla baax na yàlla baax na kay. yàllaa fi ne. Mm, ayca kon. Aïcha nag suñu rubrique société. Mm-hmm. defe naa ne ñuy waxtaanee thème bu nga xamante ne mën naa ne thème bu sensible la. Mm-hmm. muy lan muy la virginité. Mm. laataa ñu ci gën a xuus nañu xool élément bi daal <laughs> d'accord. ndax ah, xale yi jigéen léegi de moom seen parents yi ñu wax ba sonn seen yaay fu ne lañ leen wax pour ñu toog waaye ñoom noo téewu seen tànk yi su ma sañoon xale yëpp dañuy téye seen bopp soo amee sa jëkkër tamit yow lay jàppale waaye seen yaay su leen téye léegi suñ bàyyi bi seen yaay yi nelaw ñu jénn dem di yi wala ñu tàggu seen yaay fii dem dem fu leen neex wala ñuy dox yi loolu moom baaxul su ma soñoon jigéen daal dañu téye seen bopp am seen jëkkër pour yow ndaw nan lay def ci jigéen non dalay jàppale moom sa jëkkër dalay respecté fi nga sëyi tamit seen waa kër ñëpp lay respecté. olof ñaay nee fi ndox daan taa boo demee fekk fa tepp tepp rek dëgg la ñu bëri gardeetuñu seen bopp comme niñ ko daan defee mais am na ñoo xam ne aussi tamit ñu ngi toog di xaar maanaam li nga xam ne seen waajur moom la ñu yaakaar ci ñoom. tee sa bopp lu am importance sax munoo ko xam nag tant que wàcceewuñ wàcceewuñoo yow ba pare. tey maanaam boo bëggee seral say xolu waajur li nga war def mooy nga téye sa bopp ba yow maanaam sa waajur lu muy seen ci yow mu am ko loolu rek moo koy fay. ak xale góor yi ma gis ku ñu fooy fi lañ leen baax bu ñuy takk xool ki nga xamante ne nii moo toog ñu fekk ko fi ñu ko war a fekk takk ko da ngay dégg sa ñu koy wax dinaa la carrément man du takk jigéen bu ma xam te loolu dafa am bu ñuy takk ku vierge la ñuy takk. vierge tuñu na parce que ñoom ñoo ko seen bopp. ndaxte ak nu manti demee bu ñu teewoon seen bopp tegi xam na ni aménagé ñu tey loolu du mën a am ndax gën a jigéen tegi ni ni boo bëggee gëm sa bopp rek da nga war a bàyyi bëri te ñu lay tere ngay baax lu luñ la def loo nga def luñ la bàyyi loo nga bàyyi mais am na jigéen ñoo xamante ne jamono duñ toll nii nii nii mel ñu woon noon sax mais parce que li tax ñu mel noon saa yi juste saa yi ñu toll nii période ñu toll nii affaire de bombas ñuy dem comprendre nga loolu lépp moo leen ko waral moo tax ñuy def seen yenn moo tamit nag xam nga di guddee àll nag baaxul te lépp tamit si parents yi la. bu fekkee jigéen ñi rek laa wax bu fekkoon 100 pour cent jàpp ne 90 pour pour cent yee baax. Ah. waaw góor góor moom 50 pour cent yi baaxuñu 50 pour cent yee baax. ndax jamono jooju toll nii jigéen ñi góor ñi ñoo réew mi. Ah. waaw yow di nga takk xale bu jigéen bu vierge. man si. Ah. non du ma ko takk quoi mais parce que man ku bu ku vierge man laa takk. yow ku vierge ngay takk. waaw. jigéen ñi de moom ñu ngi noonu rek lu ne la ñuy def kenn du leen miimal dara ñi ñi léegi moom ñëpp yam daal. amul lu ma ciy wax. nee nañ jigéen ñi bu ñu nee cent pour cent 90 yëpp kenn vierge kenn. mais xale yi dañ ne la plupart ama amatuñu ndaw loolu noo ko gisee. bon waaw lool te mën na nekk mais daal lu ci mënti doon daal éducation de base dafa am xëy na aussi parents yu bari aussi ñoo bàyyi seen loxo léegi parent yi bu njëkk ba ni ñaan yare ak léegi daal dafa wute. waaw du benn. léegi xëy na peut-être que nit ñi amatuñu jotu toog seen kër di yar ay xale yi mais nag dañ ñaan fu ndox daan taa ba te fa te yaa nga fa. ñu góorgóorlu bu baax a baax ci xale yi daal. yar leen góor bu hmm. euh, mën naa am problème mënu am problème parce que mbëggeel moo la lépp te nit soo koy bëgg da nga koy bëgg ak lu mu doon bu nga ko bëggee ak li nga ko gisee ak soo ko bëggee li nga ko gisee boo ba gisatoo ko loolu di ko bàyyi li mu doon. li li nga ko bëggee li mu doon nag mooy bëgg ko te yàlla tax parce que moom la doon yàlla moo njëkk bu wujj da nga koy bëgg ak loolu am na ñoo xam ne nii mën nga sëy ak ñoom. doo fekk ñoom ndaw mais benn problème du am parce que ñoom xooluñ ci yow la fi nga commencé ak ñoom rek lañ xool. bu exactement Aïcha mais laataa ñu ci waxtaan rek juste pour rappeler ne que ñun on est ici mhm. bu ñu nee société sensibiliser moom moo ko tax a jóg. Mhm. Euh, virginité nag nekk loo xamante ne lu sensible comme ni ma ko waxee woon rek au commencement donc ñu nekk ci monde boo xamante ne léegi gis nañ ne tennonce bi dafa bari. Mhm. influence bi dafa bari aussi. nouvelle technologie bien sûr mais ñu gis ne ne que euh, léegi euh, léegi léegi monde bi dafa dafa dafa dem ba évo dafa en dafa évoluer. te gis nañ ne léegi aussi virginité nekk loo xamante bëri dañ koo banaliser. Mhm. donc euh, may laaj yéen euh, naka nax ngeen ko gisee parce que yéen yaakaaru leen bana banalisation boobu est-ce que taxul est-ce que foo est-ce que est-ce que est-ce que jógewul ci peut-être li nga xamante ne moom mooy évolution monde bi ni ni monde bi évolué wala ñun jeunes yi ñun ñoo xamantul suñu bopp wala ñun ñoo xamantul suñu ay aada ak suñu ay culture ak suñu ay cosaan wala góor ñi aussi ñoom ñooy yàq suñu bopp maanaam duñu gëm looloo xamante ne amul wala góor ñi ñoo ko gëmatul ba léegi banalisation bi léegi dafa fréquent Mm-hmm. si say question tontuwaale nga sax tontu yu am solo. Mm-hmm. faafa. xam nga dañoo toll ci moment boo xam ne peut-être du ma ne ñun ñuy roy ñoo ngi yàq wala daal mais virginité sax dépassé nañ ko léegi ay concubinage la ñuy dund. <laughs> kon xam nga waxatuñu wax virginité ñaar ñuy génn rek dëkk. Mm-hmm. mel ni ñuy sëy. parce que loolu kii nasaraan gi lañ koy royee. ñoom ñoo ma habitude boo sëyuloo ak ñoom sax. nga dem dëkkal sa jë far. nekk ak moom nekkaale moom. léegi loolu la ñuy dund fii nii. moo tax gars yi li mu ko wax banalisation boobu noonu dañoo wax banaliser virginité. muy lu am importance. loo xam ne mooy valoriser jigéen. mooy valoriser jigéen boo ko négligé rek yàq nga lu bëri sa life. te dañ koo banaliser bu baax a baax a baax te man daa toor bi peut-être mag ñi laa koy jox xamul ma ko jox mag ñi parce que mag ñi dañu waxtaan xale yi mhm. yi am nañu fit fit goo xam ne ay see. Mhm. bu ñu waxtaan ak ñoom rek ah, njaaxum dana dina doy waar daal moo dina yéeme dina yéeme parce que fit gi ñuy demee léegi mm-hmm. ak engagement bi ñuy demee léegi ak attaquement bi ñuy demee léegi mm-hmm. <laughs> ay see loolu gis est-ce que du aussi ñi yéen a ñuy gëmloo loo xamante ne amul maanaam du ñu wax loo xamante ne yàq suñu bopp yàq suñu xel ba ñun aussi maanaam soo ma joxul sa bopp day wa exactement est-ce que aussi cause bi mm-hmm. causé wul ci yéen moom laa moom laa wax ne li la góor gi di gëmloo ak li say kilifa gëmloo ban nga ci war a gëm say kilifa ah, ngay gëm say kilifa kon nag kilifa yi ñooy waxtaan ak ñoom ba pare jëkk seen bopp kon góor ma doot la mën a euh, détourner. dëgg mais xam nga di nga toll benn stade boo xam ne comme li nga wax léegi nii li la say kilifa loo moom nga war a gëm par rapport ak li la sa copain di gëmloo. Mm-hmm. Mm-hmm. mais jamono yi tey seetlu woon ne xale yi bu ñu bëggee déggatuñu kenn. Mm-hmm. dégluwuñu kilifa. dégluwuñu yaay dégluwuñu papa. seen xelu bopp la ñuy. c'est la faute à qui Mm-hmm. non ça c'est la faute je vais pas dire que c'est la faute aux parents mm-hmm. non mm-hmm. je vais pas dire non plus que c'est la faute à la société parce que comme tu l'as si bien dit hier on est éduqué entre trois parties la rue l'école et la maison te en ce moment dañu nekk ci un monde boo xamante ni c'est le monde des technologies tout est développé da ngay am sa doom boo xamante ni il est très très jeune dix ans nga jox ko ordinateur mu tëju ci néegam dugg di seetaan porno mm. kon kooku déjà buy góor xam na luy jigéen mm-hmm. te màggagul bu dee jigéen pareil kon cela veut dire que instant bii nii nii ak monde bi ñuy dund mu nekk monde bu difficile bu metti trop mm-hmm. ça va être trop difficile tey parents yi mën a contrôler seen ay doom à 100 pour cent mm-hmm. concernant ce thème mm-hmm. te virginité nekk na loo xamante ni actuellement nii xale li ñuy def tooguñu di ko nettali seen yaay bu ñuy dem jàngi école jaar fa dem seeti seen famille bu ñuy dem euh, tàggoo par exemple cours du soir fekk na am nañ beneen cours du soir donc doy na waar daal. <laughs> affaire moom affaire moom dafa yéeme. ay mhm. euh, doo comprendre daal ni mu demee. Mhm. waaw doo comprendre parce que affaire yi mooy bari ci sa bopp ba pare noppi jaxasoo <laughs> ndax nu bari lay ñëwee waaye ñëwee. yan affaire non loo bëgg lay ñëwee. non la parce que. ni ko def que bi. nag. parce que <laughs> doo toog comprendre. Mm-hmm. ni affaire yi di ñëwee sa bopp mooy bari. parce que doo comprendre euh, en réalité. Mm-hmm. cause bi lan la. dëgg ne cause mhm. ma la wax ne góor ñi la mhm. mënu ma la wax jigéen ñi la mënu ma la wax parents yi la mënu ma la wax ne jamono la mhm. mënu ma la wax ne àdduna la instant bi da nga man je comprends <laughs> ma dara parce que lii ma la tuddal yëpp benn bu ci nekk war naa mën a jouer ci jigéen jàkk na am bu dee xale bu góor bi góor nax na jigéen ba taay bu dee ci jigéen bi jigéen ñàkk na jom am yéene yàq boppam moom xaar ku ko nax xaarul ku ko fay xaarul ku ko may moo am yéene ji moom di ko def ak mbégte ak xol bu sedd guy yaa ngi ak xol bu sedd guy amu ci benn problème sans gêne waaw tubarkàlla ñaar yooyu bu féetee boor am na koo xam ne àdduna ko yóbbaale dëgg ba mu def ko am koo xam ne alali àdduna moo ko yóbbu ba mu tàbbi ca uhuh. am koo xam ne nag ay parents ñoo ko sànq uhuh. ndax ñoo ko sas lu manul tegloo ko bëtam fa dooleem yeggul. Mhm. yaa ngi may mu génn jaay ngorom. Mhm. moo tax yëfi daal dafa bari ci sama thème bi ba ci sax bopp bi ba na tu ma nii fi. man daal réer naa rek. <laughs> man daal réer naa rek muy muy muy muy lu muy am solo ah muy muy lu am solo c'est-à-dire que comme li ñu waxee rek mm. euh, cause yi dafa bëri mm-hmm. cause yi dafa bëri mais surtout lu ñuy gën a gis euh, femme euh, jigéen ñi déviagé mm-hmm. suñu waxee déviagé mooy koo xam ne peut xale nga parce que mm-hmm. soo demee peut-être xale yi ñoom ñooy vierge dañuy sax ay mag yu vierge yoo xam ne ba léegi dañ xam duñu xam góor mais plus souvent ay xale la ñu doon xamaguñu góor wala mosuguñoo marié léegi nag xale mooy adolescente wala adolescent boo xam mu ngi soog dugg ci puberté li muy njëkk a dund mooy le sentiment de l'amour l'amour il découvre l'amour il découvre tout ce qui puberté léegi nag moom il n'a pas d'expérience dans la vie day day day day dugg ci bëggee rek am benn faafa mu doon faram ak Aïcha ñu bëggante rek ma yaakaar ne faafa mooy àdd sama àddinaa bi ci biir damay tëx gumba sama yaay lu ma wax du ma dégg sama papa lu ma woon du ma gis man li may gëm mooy li ma faafa di ma parce faafa laa bëgg faafa instant bi moom mooy dundal sama xol te sentiment boobu noonu sentiment bu bees bu may découvrir ci moom léegi sentiment bu bees boobu noonu tant que aw ma ku ma c'est important tant que aw ma ku ma encadré damay réer ci faafa parce que li ma faafa di wax laay gëm ndax li ma li may wax la moo may neex déjà yow soo namee li la wax loo lay neex lu la waxul du la neex lu dëgg kon nag côté boobu aussi maanaam li nga xam ne ñu ngi soo a dugg ci monde bi maanaam T bi ak C bi ñu ci duggee dañuy réer réer goo nga wax mooy cause dafa bëri donc encadrement bi il faut que bien que ne jigéen mënoo koo fiire mm. ndax jigéen moo mën a mm. ñu am mooy éducation de mooy li nga xam ne moom suñu parents dañu inculpé ci suñu bopp mm. valeurs yi secondo mooy ñun ñu mën a fiire suñu bopp

mouvance wala tendance wala mbir mu xew wala mbir mu bees bu mu tax ñu fàtte suñu culture. bu mu tax ñu fàtte suñu aada. bu mu tax ñu fàtte suñu ay cosaan. Mhm. man loolu rek laa amoon may muy muy thème important moom lañu indi woon tey muy li nga xam ne moom mooy virginité kon nag kenn ku nekk nag sa xelu bopp nga kenn ku nekk sa mhm. ku nekk sa kilifay bopp nga lépp lu ñuy def nag euh, on est assez responsable kon nag nañu jëfee comme ay responsable suñu jàllee ci loolu nag nañu dem seetaan li nga xam ne ne une page de pub et on revient sur le plateau. xamees ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wii ñu nekk nii muy xewee ci réewu àdduna bi yépp Sénégal dina màndargal bés bii ñu jagleel xeex jàngoro sëqët su tarsi thème bii ñu taamu ren mooy booloo ngir jële fi ba faw bii jàngoro ñu koy wax sëqët su tarsi ngir loolu mën a nekk réewu Sénégal yokk na xarale jumtukaay yi maye na analyse yi jëm ci wàllu crachat baar yi garab yi itamit des koy maye te fépp foo dem ci biir Sénégal fekk ko fa xew-xew ubbite bu am solo bi dana amee ca Fatick alxemes ñaar fukki fan ak ñeent bu fukki waxtu jotee ci suba ca place ba ñu duppe berge du siin ci teewaayu Awa Marie Coll di jëwriñ bi ñu dénk wér yaram ak jàppale askan wi alors mu ngi noonu donc gis ngeen le 24 mars journée mondiale de lutte contre la tuberculose ñu koy amalee foofu ca Fatick euh, Fatick nag ñëpp xam nañ ko dëkku séeréer la fa lañ ko fas yéene defee xew-xew bu mag nag la grande journée ah, de lutte contre la tuberculose foofu nag damay dem ndax mooy sama dëkku ministre mhm. le ministre Matar Ba mhm. sama xarit sama papa sama soppee mhm. maa nga fa yaa nga fa man je suis présent. yow yaa ngi ci lutte ba waaw damay dem. Eva yaa nga ci lutte ba. maa nga fa ndax sa xaritu ministre boobu sama xarit a ngi fa Fade Gueye nag. Fade Gueye mu baax mi Fade maa ngi ñëw. mbokkum day mbokkum day kii jën saala. yaa ngi ci mi wax sama xarit la. Mm-hmm. bokkaane mi àndal rakkam sama xarit dem. ku ma fa dëgg ne ma am sori. ah ku ma fa dëgg. am sori lañ wax. mu ne la am <laughs> kon nag mu ngi noonu ci entre temps ku ma dëgg ne massa ñu fàttali ne tuberculose la ñuy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. tuberculose la ñuy contre la tuberculose. muy nag feebar boo xam ne mi ngi fi ah mi ngi fi bu baax ah. donc waaw dañ dañ maye garab yi gratuit. exactement exactement donc dañ fay maye euh, garab yu gratuitement c'est-à-dire que koo xam ne ne am nga feebar tuberculose soo fa demee dañ fa fekk dispositif boo xam ne ne ko fay bàyyi Mm-hmm. même ñi nga xam ne aussi dañuy bëgg saytu seen sëkkër su fekkee dañuy sëkkër lu yàgg mm-hmm. soo fa demee aussi dinañ saytu li nga xam ne mooy sa sëkkër sa crachat yi mm-hmm. maanaam xattandiku bi nañ la ko dinañ ko récupérer euh, xool ko diagnostic ko su fekkee ne da am euh, li nga xam ne mooy feebar bi dinañ la jox garab bi dinañ la jox matuwaay yi wax la nuñ koy gérer taxi ba dañ la koy jox tamit amalo dañ la jox taxi bi boo ñëwee xam nga gëstu ci fii mhm. ñu wax la li lay jariñ mhm. foo am passe sexe naan monsieur le ministre ah. dooga dem monsieur le joxe passe sexe ah, suba danaa ko woon ne ko monsieur le téeméeri taxi hmm? waaw ku ñëw lit ba noppi boo littee contre maladie bii nga xam ne mooy tuberculose booy ñibbi yóbbaale sa taxi mhm.

dugg biir dëkkam. ah kañ lañ pare ci tuberculose alhamdulilah pare nañ pare nañ ci tuberculose. ñu baax ba Alaaji Matar Ba kenn moom pare nañ ci tuberculose. Ah. tubaarkaal jërëjëf Amadou. tey sama xarit jërëjëf jërëjëf ah, ah, le ministre sport njiit réew mi fa la dëkk nii daf ma bëgg. mais Matar Ba kenn day moom. njiitu réew mi fa la dëkk yëpp njiitu réew mi. ah kon président lay def. président ay président président xam nga ni Fatick la bëgg. Hmm? gis nga ni mu bëggee réew mi. Hmm? waaye Fatick xam nga day cosaanam. waaw te cosaan nag origine dafa garaaw. ay fee lépp loo xam ne tànka ma nga ca loxo ma nga ca. te li muy yóbbu clinique ba sax est ce que nekkul à taala koy jox. est ce que du ñu la koy jox yóbbal bi ñu la koy jox. président nag sa yóbbal jox ko ñu jox ko ay ndaw yu mat ndaw. dëgg la jox ko Omaro. Hmm. jox ko Eva. Hmm. jox ko Aïssé. Hmm. jox ko Bébé Sou. tëjee ma ko nag. Ah. waaw yow la koy dee. man la koy enfermer. yow la koy ci président kenn du réew kenn du moom. kon daal lutte boobu nan la doon lutte bu rëy. journée ah. bu rëy nan la doon lool. kon président day dem daal nañu jox li nga xam ne moom la yóbbante ñu yóbbu ko mat nañu ndaw mat nañu yóbbante mu ngi noonu ayca suñ jógee ci euh, lutte contre la tuberculose dañuy jàll ci nga xam ne ne moom mooy lutte contre le sàcc <laughs> euh, <laughs> de Eva Eva et bi xam li sa sa rubrique nga koy may sàcc si ma sàcc bu may kii bu may dara bu ah, may ko non non bu ko may yéen ko doon toxal di ko yekk lu mel bu ko may déedéet bu ko may xam nga olof dafa ni mbaam mhm. bu la weqee nga weqee yéen ñaar yam mi ngi noonu waxee naan namuñu dara namuñu dara tubaarkàlla macha allah sant li ma lay mën a yëgal day mooy ñun ñoo mën a am téléphone mais téléphone mën noo am de dëgg ndokk nag mën ko dul jënd mm-hmm. alhamdulilah naa ko jënd de ndax tubaarkaala li ma lay wax rek doomu aadama bu ne la nga a sa nawle nga koy terale dëgg la mm-hmm. borom téléphone yi xam nañ leen de mm-hmm. suñu làmmiñ lañ leen teral ñu yor seen téléphone duñ teral la kenn ci ñu bindu téléphone ku ci ne téléphone ba ngay wuyoo jar na 400 mille alhamdulilah sëriñ Saali woonu teral maa la wax man kon yow bu nit bu ragal boo paree léegi moo woo nit ku baax mm-hmm. soo mu jox la waxal <laughs> jabar lii lay jariñ <laughs> mis la la xam <laughs> kon nag bis la la xamee. waaw bon comme ni ñu koy defee tous les mercredis tey na mm. dama ñëw ci rubrique déco. Mm-hmm. indil leen li nga xamante ni mooy. déco déco déco wax nga dëgg déco déco. déco toppandoo sama jëkkër ji donc indil leen li nga xam ne moom mooy lumière. Mm-hmm. différents types de lampes yi am. mais mm-hmm. dama bëgg ngeen attentif ci parce que affaire yi daf ma séduire tellement. nañ seetaan élément bi ñëwaat. lu sàkk moom a de. Badou loolu séduire sàcc bi. exemple yu ñu am bëri na am nañ ay suspension am nañ ay plafonnier am nañ à pied lampe sur pied am nañ lampe de table ci suspension yi nag dañoo am ñaari façon dañoo am suspension yoo xam ne ampoule lay jël soit halogène wala économique am nañ suspension yoo xam ne LED la LED la lampe sur pied yi tamit pareil am nañ lampe sur pied yu jël halogène ak économique am na lampe de table am na lamp de jardin tamit nekk ak li muy def comme suspension yi tey am na am na suspension LED yoo xam ne yooyu doo changer ampoule bi mun na durer longtemps doo changer ampoule bi am na suspension yoo xam ne day jël ampoule ampoule halogène wala ampoule économique am c'est pareil tamit pour yeneen lampe yi yoo xam ne day jël halogène wala économique wala LED yooyu ñoo am seen ampoule yi. mais lampe yi en fait damay gis yoo xam ne dafa mel ni comme ay sapin yoo comme yu mag yi et cetera yooyu du lekk courant. déedéet yooyu yooyu du lekk courant ay led la yooyu mooy led led nag led mun nga ko c'est à durée à moins que kii am tension am tension am mu lakk. genre yooyu fan nga ko mën a décorer. ça dépend. parce que déjà comme genre yi ngay gis ni suspension yi lustre yi yi mu nga ko def ci salon comme A4B boo amee réception wala cérémonie comme hôtel yi moom li ñuy jënd def ko seen entrée kii seen entrée cérémonie comme ay gala wala mariage yooyu yëpp mën nañ ko fa def ah waaw dafa ma defante ak Laye Sarr. la eh, moom la kii waaye waxuma loolu dama ne. sama xarit daal miir loo sàcc ba. miir loo nañu ñun ñi toog ci plateau miir loo na ah. mi toog seetaan Chérif sama xarit tubaarkàlla mi ngi xool maa ngi koy nuyu passage Chérif Fall waaw Chérif Fall mm. euh, miir loo na lu ne waaye li nga jël lan la Eva franchement ay lumière la yoo xam ne dama ko gis mu séduire ma ah. te xam nga man moom j'adore tout ce qui est mignon tout ce qui est beauté lépp luy strass paillettes comme luy tàkk rek man mm-hmm. dama ko bëgg sama xol waaw malheureusement <laughs> donc ma gis que affaire bi rafet mhm. nga gis euh, ma xool déjà décoration bi ni mu mel mhm. lampe yi ma toog di imaginer rek de ak instant boobu rek maa ngi mhm. imaginer sama kër dëgg la te eggaguma fa kon bien-être bi ngay am sa biir kër bi ngay am sa biir kër donc lampe dafa nekk loo xamante ni dafa bokk ci décoration bu fekkente ni yow xam nga exactement noo ko bëggee. Mhm. noo koy defee parce que bëri différentes mhm. façons. Mhm. bëri différents types. bu ñu xoolee par exemple am na ñoo xam tey lampe weex leen gënal. mais man j'aime pas. moi je préfère bu jaune. ba nga xamante ni gis nga ambiance bi affaire la mel ni sapin de Noël déggoo ma naan ko affaire bi sapin bi nag Khadija ma leen di au passage ak seen équipe bi yëpp maa ngi leen di franchement ndax yombalal nañ ma sama élément bi waa euh, ñoom ñu ngi a lëndëm xaw a jaune Eva la boo xam tuberculose <laughs> bal lu mu bokkal Basile bu la si loo xam te ne day dundal xol balaa nga koy xam courant coupé hmm? bu courant coupé day mel ni sa xol bi dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci tëj dara hmm. donc lumière dafa nekk loo xam te ne dafa ànd ak dafa ànd ak vie dafa dafa bokk sa vie ba su lëndamee sax yow doo amati looy def da ngay xaw perturbé tu vois te gis naa benn lampe boo xam dafa mel ni or dafa rafet dafa mel ni or j'aime bien am na boo xam te dafa mel ni diamond aussi am na boo eh, xam comme diamant <laughs> waaw comme tey moom xoola gis nga bi may dem <laughs> bi may dem di def reportage bi j'étais avec Demba mhm. mais xoola day day nekk di filmer di tourner di non c'est joli dafa daanu leer dafa daanu leer ndax xoola sama élément laa nekk dama ko sentir mais ça comme li nga doon wax léegi dogguma la faafa mooy bi ngay wax que dama bëgg yu lëndëm tout ça est-ce que xam nga dama ragal lëndëm lëndëm baaxul dama ragal lëndëm donc lumière nekk na loo xamante ni en fait pour sa décoration mën a jaar yoon. il faut nga xam nooy tànnee say lampe. Mm. Mm. il faut nga xam yan façon lampe ngay jël te en plus il faut nga bàyyi xel ci say ampoule yi dem ci biir lampe ba. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que am na ampoule yoo xam day lekk courant. Mm-hmm. mais am na yoo xamante ni dafay économiser. da lay dimbali pour nga économiser voilà. bu ñu xoolee sur le marché dinañ ko fi fekk. donc il faut nga xool. sa agencement te yëpp am fu muy dem am na yoo xam ne sa salon lay nekk am yoo xam ni ci salle de bain am yoo xam ne ci couloir am yoo xam ci jardin donc bu ci nekk ak fi nga jëm. mais man daal xam nga bu ma rey cercle bi. man de moo ma rey man dama ne am na kër yoo xam ne faaf oh, am non ñun moom làmp lañ jël taf ko ci biir ñun moom xamuñu salon ah. xamuñu buntu kër xamuñu dara benn làmp boobu <laughs> mhm. da nga def élément bu garaaw. leer. muy lépp ouverture la. Mhm. Mhm. leer te yàlla li mu sàkk yëpp ci leer da ko def. dëgg dégg boo kilifa yi yonent yëpp ay leer lañ. leer ngay dégg ñoom doo dégg ñoom. ba ñu ko ba. nit ki boo booy booy def ay ñaatu fi bëri sax naan yaa ngi lëndëm yaa ngi dégg waaw ku sañoon ku sañoon da ngay leerte am lumière di éclat am waaw éclat bu garaaw fa nga introduire waaw fa laa dugg waaw fa laa fa laa génn intellectuel nga faaf rek de kenn du hmm. am solo ah, hmm? lumière dafa garaaw de sa yaa ngi di bu ñu la tegalee plateau benn lampe bu xawee gëmmatul sa ay see nga nekk fii di kaa naan plateau dafa xaw a lëndëm naa nga sax lumière moo garaaw lëndëm du jëriñee. baaxul lëndëm. baaxul sax du jëriñee. baaxul de lëndëm day sutura rek ci lëndëm lañ koy defee. Ah. waaw ah sutura. waaw waaw pour sutura la. Ah. waaye xam nga sutura nekkul loo xam ne luy jëriñ ñëpp la. waaw mais lu leer moom. lumière rek ñun la nitu yàlla day ànd ak leer. Mm. c'est important kon leer dafa bokk ci suñu. am na solo yow tubaarkalla yow yaa ngi euh, kii da ngay yaa ngi si aménagement parce que tubaar comme ñaari galoo nga Freddy yaa ngi aménagé <laughs> aménagé ay kër yu baax. tubaarkalla dama ni boobaa yow lan ngay aménagé. loo koy aménagé sama vie sociale wala mënoo ci génn. sa vie sociale waaw man nga génn ci sama vie sociale. wala ma la vie privée sama vie sociale mën nga ko génn sama vie boo la mënoo cee génn dama di ba ma dugalee premier njëkk nga yàqule dama ne waxal lan ngay orné sa kër laa yan lampe nga ci def yu or bi nga ci def bu jamaa bi wala ban nga ci def comme yu Eva wane lampe jama alhamdulilah ndax tubaarkàlla hmm? des koy teral dëgg la danaa sàkk ci lampe

indi glamour bi ah, ah. day yi ah. parce que nag soo nekkee sa borom kër wala nga nekkee sa jabar il faut quand même un peu de glamour de sensualité dans la chambre lampe yooyu noonu day day day day day mbir mi waaw veilleuse yi mais ay xeetu veilleuse yu doy waay ah. ay oh. da nga koy def eh, mm. ça met de l'ambiance yàlla nag yàlla nag boo nekk ci néeg bu di fecc maa xam nga ne yaak Eva rawantu leen dara ndax léegi nee nga Eva da ngaa bëgg yu nam waaye yooyu de nekk maa ngi woyal maa ngi yow ndeke yaay mbas de coq bëgg woon leer ndek damaa mbas de coq non mi fu war a leer dafa war a leer fu war a xaw a lëndëm pas lëndëm mais fu xaw a war a def veilleuse a def veilleuse ah du mooy dëgg mais nag dama bëgg ëtt yi moom nay leer ndax sàcc yi <laughs> ëtt yi nay leer nañ ndax sàcc yi nay leer sàcc yi sonal nañ li ngeen di wax nii a dama koo xamul eh, Mm. xanaa amul élément bu fi des ñu heure bi jot na de saa tuut heure bi jot na cant. élément eh, desul da nga am cant damaa gémmintu damaa sonn. Ah. foogaay bay métti damaa bëgg dem tëndi. ndeysaan mag nga ñaari mag la damaa jëm mag <laughs> sama yaram neexatul. nga jobar dafa am solo. sama yaram neexatul. kii ni may toppatee. Mm-hmm. gisoo ni ma nekkee en ay. non en forme gëmmu ma. Hmm? ma absenté wu ma. ah je suis présent moom na jikko ba dee sàcc nañ ko agressé wuñ ko ko. <laughs> mu am na ko xam nga gis nga bëggeel. dafa garaaw. dëgg la tricherie baaxul. Ah, baaxul gis nga jabar gi sax man gëm naa ne moom dëggu waa hmm. waaw jabar ji moom nit ku dëggu na xam naa ko laa nit ki ko bañ bañ bañ bañ waxal ko ay jikkoom. waaye ku góor gi xam naa ne ko jigéen <laughs> xam nga wërsëg la muy fàtte en fait mhm. xam nga ñëpp yemuñu mhm. àdduna yàlla dafa bind te yemalewul mhm. macha allah boo xoolee kii xam ne amul jot Ah. dëgg la nekk ci programme am. dëgg la mhm. làmb ji la 27 la 27 suba la 27. la 27 làmb ji 17 avril Thiès. 17 avril Thiès. 14 mai Paris. 14 mai Paris. nii laa dëkk. Eh, kon mënul am temps noppalu c'est <laughs> normal mu sonn pour nelaw. ma la ko ah, xam nga lan lay ragal. defante eh, na. <laughs> la ñaari téléphone. dama <laughs> ne nekk instant bi dañoo nekk ci mariage yu takku yu dëgër yoo xam ne ne euh, am defante ci biir ah donc mariage bi faafa la ak ak ak bébé chou. waaye jubóo ko Eva jig na la mais yow jubóo Eva. maa juge bi daa man fi laa toog di leen déglu rek. ma pare ma daal di xam ni ma yore liquide. Hmm? man nga xam ne damaa gëj a yore liquide. ñu ñaari weer ci ginnaaw damaa kale attendez attendez attendez liquide <laughs> Sabaté doo non kii da koy laaj dépense mu ni ma maa ngi ñëw. ah ko gisati. Eva bu ko xaw si turam bi non fan yii ñoom baa bañ pare rek. ah fan yii moom mi ci ni tàkk sa fëpp. Eva jigéen jigéen da nga suturaal sa jëkkër. man de Aïcha man de Aïcha bu fekkee nangu na nga suturaal Kaba te gis nga bu nangul benn instant. man de Aïcha non may ma man mii man may ma. doxalal doxalal bi Aïcha man de sama man de sama jëkkër macha allah ah sama xaal xiina lekkul dara bàyyi ma. ndeysaan bu amee juróom bokk nañ ko. Hmm? bu amee mille bokk nañ ko nëbbatuuma de. ndeysaan lépp loo xamante ne rek. ñëw na ci moom tàqale na fële nga tàqale na ci ma ah, ah, ñaari mbir yu am. ah, ah joo xam ne. Mm-hmm. réew moom lañ bëgg boo duggee Géejawaay Parcelles Patte d'Oie Yoff Pikine Ouakam Damel foo dugg ñu naan ana bébé suuf. national réew bëgg ko nga ne doo ko teral du ma ko def. d'accord yaa ngi di waaye mënoo am jabar joo xam ne ministre ko xamee. ngay may ay ngay may ay téere ay mbër ñu sàcc téléphone nga damay ma. je suis pas d' accord xam nga man nga man sama jabar international la. Ah. sama jabar du national de. du national sama jabar du carte du carton. du carton du carton. du du zeng. <laughs> sama jabar international la. ndeysaan kii Londres la may wooye Suède. Eh. Italie. Eh? Amir fële nga wéy ci am nga eh. fële nga wéy ci am ah, nga fële eh, nga wéy ci am nga. jërëjëf dama la Ewa jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ayca muy noonu kon nag Fafa ginnaaw ba nga reyee rey nga ñu man rey nga ma man rey nga ñëpp fu ne nii ndax ne nga géej waaye fu ne nii sa jabar national la kii jabar eh. international il <laughs> il faut ñu tranché nee na balaa ñoo tranché yow tranché ba pare démb dafa am xale bu doon jooy mhm. émission bi mu jeexee mu naan yaa ngi tey Fafa waxut bu jógee taxaw ngeen tàccul ma koo Fafa billaahi dañ yaa ngi jéem a oo ah, ah, xaaral ma naan kafet. ah dëkk bi nga xam ne bu jógee taxaw la bëgg. jaar damaa ne mbay mu sofaan daf ma doon jooy tey ne ma faa tey waxoo bu jógee taxaw ngeen tàccul moom. may dem auto école tey. am ku ma dëgg. ah yaa yëg la si auto école. Ah, maa nga planifié yaa ngi dégg mu ne ma faafu sama doom ji Mouhamed la tudd waaw liberté si seen dëkk mhm. bu jógee taxaw moo la bëgg comme xale yi bu jógee taxaw la bëgg na xaw ma bëgg a dégg bu jógee taxaw ngeen tàccul ma ko ay eh waay bu jógee taxaw ngeen tàccul ma ko ay eh waay bu jógee taxaw ngeen tàccul ma ko bu jógee taxaw ngeen tàccul ma ko di ko tàcc muy dem di ko tàcc muy dem di ko tàcc muy dem

soo jugee taxaw ngeen tàccu ma ko soo jugee taxaw ngeen tàccu ma ko soo jugee taxaw ngeen tàccu ma ko soo jugee taxaw ngeen xamul li ma métti rek xam nga mooy lan. buñ ñaay ku ma roos dund nga ba dee te xamul ne tàmmul Massa Ba la. barke sëñ Tuubaa maa ngi nii waa léegi yow ku ñu fi kenn la yow. nekk daal mbir mi yow la. nekk daal mbir mi yow la nekk xorom si man la. nekk daal tubaar kàlla bay na man la. nekk daal moom neexit bi moom mën a. du lu ko wax waaw dóor bi dóor bi nga dóor ban la. mais façon ci gàmb la déglu ma amoo bopp bu jógee taxaw moom la réew mi bëgg sama xam nga loo bëgg ginnaaw réew bu jógee taxaw lañ bëgg maa leen ci dolli loolu laay élément di carte plateau bi man. salaamaaleykum ça va. na ngeen def. mun naa toog noonu ah dama bañ a wéet fii rek quoi c'est possible. la yow. Umu. Umu. soxna si yow bi la. Aïcha. Aïcha. awa ah waaw. monsieur Graal bàyyil carte bi ma lekk ak ñi bien. ok ma nekk ak yéen ak kan. yéen rek benn yoon c'est bien. partage. ça va dara am lekkal rek benn yoon. ah waaw. naa lekk ak yéen. doo lekk mange. waaw bisimilah merci. c'est trop bon. moom sama xarit bi ma àndaloon ma woo leen balaa ñoo dugg ci boutique bi ñu woon ci boutique bi quoi. waaw pizza neex na. ah maa ngi ci restaurant bi nekk en face chez lui. Turkish Almajun bi. ok en face bi ñu ko ok. C'est mes amis ñu. salaamaaleykum. samay xarit lañ Umu. ak Ami. Ami. Aïcha Dima Fall. da nga ñu toog ma toog leen nii benn yoon toog leen nii ki ñun. kaa yaa lay suy ah toog xëcc leen si ñun toog hmm. ñooñu. non c'est mes amis. affaire bu neex. man la depuis de benn affaire bu garaaw. nekk ah. naa waaw ah, baax na. Hmm. <laughs> dañoo cool dañoo baax. àdduna am àdduna amul solo booy oyof rek moo am solo. monsieur. mën naa am tuuti kaani s'il te plaît. kaani ak piment.

ça on est emporté lii comme oto baa ngi ñu côté boobu ñu dem mu paas noonu. emporté les deux. Eh, il faut jóg. ça va man dama. Eh, il faut parler. d'appeler la police monsieur. non attends police ak boo demoo leen man danga ma dégg ma passé fi commande. non mais je suis désolé. je suis désolé dama laaj man dama fi passé commande. man dama fi passé commande. d'accord man passé wu ma ko. mais j'ai parlé avec le problème c'est que c'est moi qui parle d'accord. le problème est qu'il est venu, il nous a trouvés assises toutes oui. les deux. Oui. Il a dit est-ce que je peux m'asseoir avec vous oui. Est-ce que je veux m'asseoir avec vous Ça ne veut pas dire qu'il fait partie de notre commande. D'accord donc à ce moment-là il s'assoit bu mu am ma pizza il se met à manger. yow nga kii non. waaw nga ni daf leen woo bu ngeen ñëw lekk ba pare ngeen dem seen yoon. waaw waaw kay sinon dañuy woo police yéen ñett yëpp ngeen waaw parce que ñun xoolal kii ñun dañu ñoo invité ñun ñoo leen invité ki leen invité da ngeen assuré ne am na xaalis bu mu fayee. xaalis bu tàng dama la doon tooñ caméra caché la woon 2STV. oh my god kaay jël ko ci biir kaay jël ko ci biir réseau bi mun laaxatu kaay kaay. léegi am naa kaay xamu ne ko laaj. rek. bi ma ñëwee toog di lekk rek yow lan nga sentir lan nga lan nga yow nga lan nga. mais daf ko bañ a wax waaw. Hmm? léegi. léeg-léeg <laughs> garaawul xaaral xam nga léegi man xam naa am nga loo di xool ci yeggali pizza bi. xool ci yeggali pizza bi léegi non garaaw léegi moom léegi garaaw dem dama am nga léegi yow fay di nga ko fay am nga xaalis di nga ah? jeex na <laughs> mi ngi noonu kon nag Fafa. Fafa femme bi su la dóoroon ko faj. non du ma dóor. kii su la dóor non instant énervé woon na énervé boo xam ne la doon dóor de. non moom kay fii la tolloon. nee na fii kii manière yi mu def yëpp. non li ma tubaab la moom la français yu wex. tubaab la moom moom gerte bi xam nga nag am na ñoo xam ne amuñ. comment dirais savoir vivre. xamul lu tam yéenoon maanaam fekk ñaar mu toog kenn restaurant tamit dañ koo tooñ. ah dañ lekk commande am ba ko ci may laaj ay kaay rek ay ko yaay fay tamit tooñ la. Eh, léegi moom daa baax sax. Mm-hmm. non dafa baax dafa fay na lépp may dem après def nañ connaissance ñu xamante bu baax. ñu mm-hmm. ñu baax mu tudd Nabou point yi la dëkk. Mm-hmm. ñu ko baax. ak waa restaurant mu xayri mais ba nga excès juste mu toog mm. moom kanam gi mu ngi kaf ak rek mais ba nga laajee ba nga indee commencé lekk ci commande am gis nga kanam gi dafa changé mu froissé ko tëj ko ah kii dala doon doon damaa lekk commande am ba pare yemuma ca nga woo ñoom bébé woo samay xarit fa ñoom ñu ñëw ñëw toog defaat beneen commande. lekk ba suur <laughs> di di di xam si mën naa am <laughs> mal service. <laughs> musuma gis ku mal service ni bébé chou. mal service la xale bi def. Ah, yow ñu invité la ngay laaj kaani. waaye kii yow kii xale la war a bëgg la. Eh, kan moo ko ah, gis ngeen moo ko na nii. ay te bu ñu paree nag waa restaurant leen mi euh, Turkish Almadioun. Euh, mm. très sacré cœur parce que mm-hmm. fayuñ dara après. lépp mhm. dañu ko may kontaan. kontaan dafa def loolu. loolu mooy remercier seen seen mbokk yi neex na trop te ñu ngi sax na trop. neex na neex na sax na ñoom ñoo nekk sacré cœur doon ñoom ñoo nekk sacré cœur doon. dem naa fa samay xarit lañ. ñu mm. baax lañ ñu mm. baax lañ. Isaaya neex na Ziya neex na ñoom dañuy dañuy am kalaate de comme personne si dañuy jaay waaw te Kirist daal ma jun borom boromam mu ngi tudd Omer jabar gi tudd Umu Xayri ñoom daal ñoo ko peloo daal def seen yu baax. merci beaucoup kon daal ñu ngi leen remercier bu baax ndax moo nañ leen fa porter plainte doo leen fa doo di ah, metti xam ñu nga ne gel bi nu mu tudd te Nabou Nabou moom ca point on te remercie parce que yow it nag mën na kon am na ñoo xam ne dañu continuer mer de <laughs> am na ñoo xam ne dañu continuer mer de engagé xuloo xeex mais kon euh, Nabou ñu ngi lay massaw waa ah, ñu ngi lay massaw man dama lay massaw ci liñ la def ah vraiment tu ne mérites pas kon nag dañuy profiter euh, nag gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu solal ndax émission fu ne ni tàmbali naa jeex ah, ah Foussana <laughs> Foussana yëg nga ne Ndeye Fatou Dioum ñawal na ma cub parmaan boo xam ne mel na ni yombal xiyam ci moom eh, nax nga ma mais nekkate nag Ndeye Fatou Dioum kenn du moom de eh. bàyyi nga ne moo man ci réew mi yow booy kenn moo kenn la ma ñawal la 27 mars day bi ma ko yónnee WhatsApp. lu ma ah. xëm ñu xëpp ma ndox ma naan soow toogaat. waaw xool fa xam nga defaat jum defaat jum. kenn liggéeyam dañu ñëw dafay defee xol. Ah, loolu xam nga yéen ne ngeen paas taxi. avant paas taxi da lay toggal suppu bu am crabe. am crevette am lu nekk nga lekk ba suur mu doog laa jox parce que jox la cuub moom mu a ñëw <laughs> ngi noonu donc nag moom nag dafay jàpp xew bu baax parce que vraiment suñu soxlaa ay cuub moo ñu jox cuub yi donc te cuub dafa cher. xam nga maanaam joxaane nag

ñooy waa bébé chou famille mm. parce que ah. kenn ku la bëgg jël naa daw ba dee ngir ñi la waroon bëgg te bëgguñu la xale yooyu aw ma seen fay je vous fais un loolu kañ la Eva bon man kon Fatou Kelle yaa ngi taxaw <laughs> waaw <laughs> eh wala waa Eva famille mu Ndarak bu Kolda bu Kaolack wooñu ñëpp <laughs> bon man maa ngi remercier ki nga xam ne moom mooy Bamba création nekk foofu ba Ouest Foire di remercier Kamal Coiffure di dem ba Koungheul nag foofu ah. man sama fan sa club yëpp ak ay Eva Fashion la ñu madame Amady ak groupe bi damay remercier ñi nga xam ne ñooy Universal Market. <laughs> ISCOM en face ISCOM. sa kër euh, Castor. di remercier bu baax a baax ñun bu baax a baax. waaw waa Universal Market. waaw Universal ñoom ñoo nekk di nuyu nag sama charge jaay ko chargeur téléphone. chargeur bi moom daal nuyu naa ko baax. waaw nuyu naa ko baax écouteur bi Ablaye. waaw Ablaye ma jaay baaxul. benn benn ma <laughs> solal sama rakk sekk ndaanaan. <laughs> moom ma sañsel ma tàkk ba yàqu. Mhm. réew mépp nag dinañ jox rendez-vous dimanche. Mhm. ay see. Mhm. bis du tur borom lay tollool le mars dimanche. sama drapeau bi SR Iba Mar Diop boo naa ci réew mépp. dëgg la ñëw dégg naa Abdou Ndiaye moom mooy sa mooy sa joxe na benn nag ak ñett saako ceeb. kenn du moom Moustapha sama kon nag mbokk téléspectateurs yi entre temps la woon fii sur la 2 en direct ngir bëggal leen ngeen dindi bi ah ngeen ngeen enjoy saa su ne ànd ak team entre temps bi ni chaque soir kon à ne pas demain encore à la heure on vous donne rendez-vous bonsoir bonsoir merci beaucoup thank you ñu daan leen woowee albaki booke soo dem na xam ne maamara ma santoon Mbàkke Bawal booke soo dem na